salaamaaleykum mbokk internet yi ñu safoo di ñu seetaan sans su nekk fii com euh, te ñu ñëwoon seet si euh, Père El Hadj Faye ku ko xam-xamee ko ci Samina waaye boobu ba léegi mi ngi des ci euh, xolu sénégalais te mu tëdd feebar ñu ñëw seet si ko dañ koy jox kàddu mu nuyoo rek après ñu dikkat moom ci waxtaan tey ñu leen di di la ziar. waaw maa ngi leen di fay bu baax di leen ziar di am mbégte ci seen déplacement bi nga ngeen déplacé wu ñëw. seet si ma pour ñu waxtaan euh, ma am ci mbégte lool di sant yàlla nag di julli ju Muhammad sallallahu taala alayhi wa di sant sama ñaari waajur di sant sama sëriñ sëñ Cheikh Say Mbacke euh, di ñaanal la xalif général des Mourides. sëñ Mountakha Mbacke yàgg fi lool tànn ak wér ak njabootu sëñ Tuubaa gépp di ñaanal xalif général des Baye waaw papa ñu gis ni nga tëdd feebar mu metti loolu ñu lay laaj ah, feebar bi ban feebar la lan moo dal. feebar daal feebar la nga feebar moom nekk lay dikkee yàlla dogal na ah, sama tànk moom mu xëy rek am ay problème lépp kenn mënu ko wax ndax daanaka li ci amoon solo waxoon naa ko ba ñëpp dégg ko xanaa dellusiwaat rek leen xamal ne daal. tànk bi sonal na ma lool eh, boole koog fu ma masaa dem dañ may yenu léegi sax maa ngi xaw a am tan dañ ma daan yenu jël taxi pour ma dem di def samay pansement wala may dem hôpital te loolu yëpp xaalis soo koy def foo ciy dem da ngay fay taxi waaw boole koog di fay say pansement hopital bi la même chose kon nag loolu loxoy kese defu ko moo tax ma doon yëglu rek waaw bi nga demee hôpital waxuñu la ban feebar la. non waxuñu ma ban feebar la ñu defal pansement rek dama defal ay ay dama defal ay vaccin waaw dama ko boole nag euh, garabu tubaab ak garabu wolof ndax taal bu tëwee tàkk wet bu ne nga koy ubbee waaw. ñu gis ni ministre de la culture. ñu ñëw ñu lay laaj ba xam jàpp na ci wala parce que moom moo yor lépp loo xam ne ci wàllu culture la te aussi nga def lu nekk fii ci Sénégal ba xam moom yëg na ko. yëg na ko yëg na ko bu yàgg ndax ki nga xam ne mooy directeur des arts moo nekkoon directeur des di Abdoulaye Koundoul wax na ko ah, ki nga xam ne mooy euh, moo fa nekk léegi actuel di directrice bi nekk directeur des arts bi nekk fa wax na leen ko. waaw wax nañu ko bu yàgg xamal na ma ne même kii Racine Senghor bi nga xam na moo nekkoon euh, directeur u monument de la renaissance wax na ko ko waaw. Euh, boobu ba léegi yàgg na trop waxuñu ma ci len non seulement defuñu benn acte defuñu benn geste mais woo téléphone sax defuñu ma ko ci lu toll na ministre de la ministère de la culture. ma nekk fi nga xam ne ci ñoom laa bokk eh, amu ci amu dégguma ci kenn waaw waaw noonu la demee waaw. gis tamit euh, la première dame Marème Faye Sall aussi tamit moom mi mi ngi def ay social est moom tamit yëg naa feebar bi. feebar bi daal defe naa ne ku ko yëgul amul xanaa kay tànqamlu waaye euh, waaye moom day eh, sama xel mu gàtt yaakaar naa ne bu ko yëgoon na def geste. wala mu def benn effort mais ndax lu toll nii réseaux sociaux yëpp di ko wax ak télévision yi ñëpp di ko wax ah bu ko déggul dina ma jaaxal waaw te dégg naa mi ngi def social di jàppale ñi nga xam ne tawar nañu même président sax gis naa ko muy def ay social di jàppale ñu feebar waaw wax dëgg yàlla mais yaakaar na xanaa buñ ko déggoon. te defe naa ne mbir mi umbul kenn ndax siw na waaw siiw na ci réseaux sociaux yi siiw na ci média yi waaw kon sama xel mu gàtt ma yaakaar nag yëg duñ waaw. mais est-ce que jot nga tamit euh, jéem a contacter waa SODAV parce que ñoom dañ cee war a jàpp. SODAV SODAV moo gën a yéeme moo gën a yéeme ndax SODAV lu bon bon feebar feebar. déplacé wu naa dem ba si ñoom yóbbu këyit yi nga xam ne moom la hôpital bindal ordonnance gi yëpp mais ñoom itam c'est la même chose ñoom ñoo gën a doy waar sax ndax ñoom yóbbul naa leen ay papier bu ñu gis lépp mais cinquante mille francs koo xam ne sociétaire la ah ak loo ñàkk ñàkk ñàkk ak millions yi fa nekk yëpp ah ñu yëkkati cinquante mille francs ah boobu léegi léegi mu def deux semaines quinze jours yoo xam ne cinquante mille yooyu dañ ma ne sax après nañ la woo am nuñ ci lu luñ luñ la joxaat mais boobu ba léegi boo leen woo luñ la jël. mais da nga gisoon ne que ñoom mën a joxe lu ëpp loolu en tant am na kees boo xam ne pour social la ah. ñu yëkkati cinquante li ma ko jox dama noonu sax dama leen koy delloo. wax dëgg yàlla ah, di di leen ko delloo. te sax wéeru ma dafay xaw a doy waar ma téye ci rek ak jàpp ci liñ ma wax ma dans deux jours trois nañ am lu ñu la envoyé mais ba léegi rien te def na quinze jours noonu la mbir yi demee daal. ñu gisoon la tamit nga ànd ak Youssou Ndour ñooy laaj est-ce que euh, jàpp na ci wala. waaw Youssou Ndour bu Super Étoile kooku ku baax la ku reconnaissant la ku fàttali ko démb la ndax bi yàlla defee Youssou eh, ñëw. nar maa toroxal mu woon na ma ma demee li may li muy sama tànk di métti métti fexe naa ba jël oto dem fa toog ak Mara Dieng mi nga xam ne mooy manager bi moom la yebal vraiment muy ku baax Mara Dieng waaw def Youssou Ndour fay lépp arrière yi ma mun yëpp yëpp yëpp la fay bawul dara ba yëkkati enveloppe sax boole ko ci jox ma xam nga ko wax dëgg yàlla. mu dara lu ma koy waaw boole ko nag ak yeneen yoo xam ne yàgg na koo def waaw ah, yàgg na ma jàppale waaw foofu lu mu mës a dégg man ah, ne ci taxaw waaw bañ ko ba maaraajee na ma booleel ne ma loo yëg si El Hadj naa ko yëg a ah, problème bu mu am waaw bu na nga ñëw soumettre ma ko waaw ba tax na bu ma masaan am ma ko soumettre am na ko yeggee Youssou Ndour te lu ci Youssou Ndour yëg taxaw na ci vraiment te aussi Mara Dieng yàqu ci dara waaw ay xarit tabaski yëpp chaque année Youssou envoyé ma yónnee ma ko ba ci koor gi passé kon kooku vraiment ah, du ma def lu di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla wér ak gudd fan waaw yàlla gën a wéral baatam waaw naa loolu leer na kon ñëpp war nañu jàpp que ni Youssou Ndour euh, jàpp na ci ñuy laaj à part Youssou Ndour ban musicien moom ngay déggante pour moom ne dina ci jàpp. Viviane aussi vraiment ba nga ko déggee rek la def acte moom it ndeysaan def geste bu rafet jël enveloppe bu bari yónnee ma ko vraiment waaw yabal euh, manager euh, Mbacke Mbaw vraiment moom dafa ñëw ba fii kii yabal. ba pare ne ko nag ne na daal man naa ànd ak Mbacke Mbow dem ñëw seet si ko waaw vraiment muy lu rafet waaw.